Seni xarkanam nga mën ci jàng tiis ak njàqare gannaaw ba jàngoroy covid-19 dal di leen mbas ñu ndërmeelu ba amatuñu lenn lu ñu yóbbu seeni kër fii ci jaa bi nekk ca pikin jamono ji ñuy wax deuxième vague fekk na njënd meeg njaay mi soxe fi lool fan yi moom feebar bi moom dafa yàq lu bari si suñu liggéey liggéey baa ni dara doxatul amatuñu bagage amatuñu marchandise loo jënd da ngay ragal ndax feebar bi ñun jaayatunu mën na suñoo fay luyaas maatu ñoo dépassé sunu doom yu liggéeyu dañoo dee ba ne wet. marché Zeng marché Ngor la duñu jaay dara nattatuñu lekkatuñu naanatuñu dëkk bi metti na soo laalee police yi yóbbu tëj la ci jaboot nga yaakaar li ngay jaay si ngay añ si ngay reer si ngay ndékki waaw suñu jëkkër yi buñ demee xëy dem ñu ñu xëy dem la ngay indi dara du ci bari lekk rek lay mat. mbas mi sax naam metti na lool ba tax ñenn ci ay jaaykat dal di tas seeni lafu sër la nekkoon as ñu jóbbu ko. ca seen i njaboot. ku ci nekk léegi boo daan jënd kees léegi demi kees gay jënd parce que gisoo koo jaay ñoom ñu seen ñi am ñi am doole tuuti dañuy dem jënd ñëw denc seen kër mais ñun nga xamee ne dañuy góorgóorlu mënuñu ko parce que ñun li ñuy jënd ci la ñuy jox suñu jaboot dañuy dem chaque jour mais léegi demi rek la ñu mën a jaay. dëkk bi saa yi dafa am gaaf kenn xamul lii lan la comprendre ngeen gis nga mën mi wax yow téer laa woon embossement laa doon def mais dëkk bee tar dafa metti par yu pare lay doon. yenn saa da ngay am xaalis yenn saa doo am xaalis te ama loolu doxatul réew mi nga jóge dëkk ba dëkk ñëw fii nii loolu day metti ci laa duggee si lii nii lii sama gannaaw ci ci la yor bi dafa metti sëñ bi metti rek metti na ci jaaykatu marché yi nit ñi sonn nañu heure bi ñuy metti na heure bi ñuy meti metti na yoratuñu xaalis ñun daal ñoo ngi nii rek ci loxoy yàlla daal sonn nañu lool ku ne covid 19 wax itam wàllu ak bépp matukaay ngir fàggandiku ci bile feebar fi mu toll nii nag ña yëngu ca jaa boobule di ñaawlu bu baax lenn ci ak yaafuus gi ñu fa nemmeeku. première bi moom toppatoo woon nañ ñu ngi doon xool ñu ngi doon indi max yi di ñu jox ñu ngi doon jox gel tamit ñuy raxasu waaye comme deuxième bi nii kenn dugg fi jox ñu max kenn ñëwu fi wax ñu def leen lii. première vague bi moom ci lañ ko gënoon a jël mais deuxième vague bi sax moo gën a grave parce que li ci am ay décès moo bi. mais suñ ñu defaloon euh, prévention yi ñu defaloon bu njëkk bi kon xëy na yooyu yëpp ñu ci yegg. déedéet première ba doon nañ ñëw fii di joxe ay masque ku teg ko la masque alkaati yi ñëw ñu ñu jàppale yóbbu léegi nag amatul. léegi amatul loolu lépp bàyyi nañ ko léegi première ba daal lañu amoon. première vague bi amoon na fi am ndax euh, jara indi woon na ko fi zel or sewal teg fi ay nit ñuy rax ku dugg raxasoo waaye deuxième bi moom daa gën a métti. war lool. dëkk bi daa wow xaalis amul. ñi ko doon def ñoo ñoo ñëwatul ñi ko fi daan indi ñi daan indi ba kii yi euh, li ñuy raxasoo ak yëpp ñi ko fi daan indi indeetuñ ko indi wuñ ko fi. waaye ñun wax dëgg yàlla fagaru na ndax ñu ngi takk suñuy mas ñu ngi raxasoo suñuy sel. da ngay gis sax client bu ñëw di jënd sax du ko wala lool te loolu c'est pas normal ñun nag ñoo mën a dimbali suñu bopp ndax feebar bi ñun ñoo ko mën a aaral suñu bopp li ñuy tere buñ ko defee. mu dem mais bu fekkee ne nag respecté wuñu li muy tere ala kulli aal day a law rek. lii di sensibilisation ak yeete itam daal di fay jafe lool ba ñenn ci ñoom daal di yëkkati seeni kàddu daal di koy naqarlu. kenn joxuñu ceeb kenn joxuñu doole dara. si marché bi si la ñuy yaakaar di togg añ togg reer defar suñu néeg suñuy doom di jàngi see jënd kayeeg lépp mais gisatuñ dara 5 heures nga wàcc ñu tiim la nga wàcc sonn nañ trop. léegi bëri na xaalis amu fi lekk jafe na àdduna lépp a metti daal boo bëggee dëgg ñëpp gis nañ mbir mi nu mel feebar bi chaque jour télévision baa ngi joxe ku nekk nag ku tiitul bu ne da ngaa ragal yi am léegi amul woon. am na ñoo xam ne bu ñu amee lu ñu lekk am na ñu amul lu ñu lekk am na ñoo xam ne bu ñu bu ñu toogee guddi. duñu am luñu réré yeen say da ngay gis ñii di jënd ay biscuit ak ay mburok ay poncé loolu yépp dafa metti xam nga nit buy def day sét ñe neew doole ngay ngay sóoraale waaye dama am naa doole luma neex lay def da ngay li ñu man doole na ku mel ni man min dimanche man da mo xey man sama lettre sama kër na man nam sama xeyé sama xey sa am sama dépense togu war ma ñoo xalé ma sa buñu jaay duñ lek ñàkk ay jumtukaay ngir fagandiku ci bile feebar di covid 19 amit ay jafe-jafe ci walu ñënd ak njaay poos yu loof ba kenn xamul lan lay nuru doon lu ëlëb lool doomi banlieue bi féete fële ca jaa ba nekk ca Pikine couvre fa bi sax ak yenn ci ay dogal yu metti lool yu ñu teg seeni nodd doon lu tax ñu yëkkati seeni kàddu alerte autorité yi ngir ñu taxaw ci seeni mbir